donc man la Moustapha Ciss donc di censeur lycée bu Thiénaba waaw. waaw non Moustapha moom euh, ni ko xeebu la rek quoi waaw Moustapha ni ko xeebu la rek donc man maa ngi dëkk Kees donc foofu laa jànge jànge lycée Malick Sy après bon ma dem université euh, def INSEPS génn nekkoon professeur éducation physique pendant parce que ay 13 ans yóbbu ma Kaolack. donc bu ma génnee foofu Kaolack après ci laa gagné poste censorat bi Thiénaba depuis 2017. Mm-hmm. donc depuis 2017 nag maa ngi fii Thiénaba ci lycée bi comme censeur des études. Mm-hmm. non naa fi ñeneen parce que lycée bi nga créé du du fekk nañ fekk fekk naa fi ñeneen. Mm-hmm. am na si ñaar ñoom ñu ma xam ñoo xam ni ñoom fi jiitu. parce que lycée bi CM la woon xam nga. waaw mu nekk lycée donc CM la woon xam nga souvent CM de proximité yi. benn moment nii dañuy préféré érigé ko en lycée parce que mooy gën noppal élèves yi. ndax CM euh, yi mu polarisé dafa bari boo xoolee dëkkee nekk aux alentours dafa bari donc xale yi mënuñ jóge fii di dem ba xombalo wala di dem ba kees di fa jàngee ce qui fait benn moment dañu jël CM bi léegi ñu yóbbu ko état bu lycée mu nekk nag cycle long mu nekk sixième ba terminale donc avant fekk naa fi euh, ku ñuy wax euh, monsieur Mbengue nekkoon na fi censeur man ki ma ki kooku mu ngi tudd monsieur Diop moom léegi mu nekk Diourbel quoi. lycée bu Thiénaba bon comme yeneen lycée yëpp waaw comme yeneen lycée yëpp rek mais comme lu ma wax rek li particularité bi mooy boo lis la boo xamante ni dafa nekk département bi waaw donc moom nekkul ci ville bi mu département bi donc bëri nag ay dëkk yoo xam ne dañu par exemple ñun ñoo nekk ñu wër Thiénaba lu mel ni ay xay ay euh, ay ay kër Ibra Fall ay euh, Touba Gueye voilà ay ay ay ay ay am euh, tuuti voilà yoo xam yaa gën a xam parce nekkoon nga fi donc dëkk yi nekk autour yëpp seen xale yi ay aaneen ek Madaar ñëpp bu ñu amee seen seen seen seen entrée en sixième ñenn ñi wala ñu am seen euh, BFM ñu ci ëpp ci lycée bi lañ leen lañ leen andi. donc xam nga waree xool ñoom mag nañ parce que ay milliers ñu ñëw fii mu gën leen jege moo gën que nga bëgg leen yóbbu ay kees wala nga yóbbu leen xombol donc loolu la quoi laa xam naa ne bon mooy un peu la particularité mooy lycée bi bu nekk ci département bi bi moom je ne saurais le parce que bon gëstuma ci archive yi ba xam parce que comme la wax rek man diggante bi ma fi ñëwee léegi. loolu laa fi gën maîtriser donc man maa ngi fi ñëw depuis 2017 donc boobaak léegi man loolu laa ci gën ëpp lu ma maîtriser mais xam naa ni lycée bi moom bon biñ ko créé yàggul parce que comme la wax sànq avant mu nekk lycée CEM la woon te boo xoolee ñi fi nekkoon diggante bi kenn ki je crois Alsane Ndiaye la kenn ki Baba Thiam ñoo fi nekk kenn ki principal kenn ki ñëw bu ñu defee lycée kenn ki nekk proviseur soo ko doon xayma diggante beeg léegi bon du fi bëriw fii ma dafa peut-être ay fukk te juróom ñaar fukki at du ko mat parce que ñun ñoo ngi suñu cinquième année te auparavant ñi fi jiitu def def nañ fi ay quelques années donc soo ko doon boole xam naa ni peut-être fii ay 10 15 ans maximum xëy na mais loolu bu du ñàkk soo laajee peut-être euh, prof ICGO yi ñoom ñoo gën a mën a xam pour wax la effectivement euh, durée bi kañ la ak yooyu daal. bëri na boo demee ci Sénégal ay CM yoo xam ne dañ leen érigé en lycée xam nga bu nekkee CM sixième la ba troisième am ay prof yoo xam ne ñoo fa war a jàngale mais léegi soo ko yóbbee niveau lycée. su boobaa day am léegi proviseur am censeur am aussi ay daanaka ay des fois aussi ay ay SG benn ba ñaar ñu yokk aussi surveillant yi mais yokk aussi prof yeneen niveau parce que prof yi intervenir ci euh, CM yi toujours du ñoom ñoo mën a intervenir ci lycée bi ce qui fait que soo defee lycée CM bi yóbbu ko lycée il faut forcément nga ànd yeneen prof yoo xamante ni ñu woowee ay ay PS wala ay PEPS wala ay PM ndax ñooñu ñoom ñoo gën a habilité pour jàngale ci euh, ci lycée bi. bon amul au contraire sax kay parce que bu fi xale nekkee nga nekk sixième yow gis sa mag yi nekk terminal en général loolu dafay nekk sax des fois source de motivation parce que da ngay bëgg yow fii ak ay euh, mat juróom-ñeenti at. nga egg ci ba mooy terminal pour mën def sa na nekk sax source de motivation c'est vrai que nag gestion bi moom souvent du nekk luy yomb parce que paramètres yi ngay gérer moom mooy xaw a bari quoi mais l'un dans l'autre amul benn problème pour euh, ñu ñu ko ko quoi. bon liñ ci mën a wax li mooy moom dëkku dine bi moom feeñ na ci comportement xale yi yenn saa mm-hmm. parce que en général man bu ma fi ñëwee bokk na ci li ma gën a frappé mm-hmm. mooy xale jigéen surtout da ngay gis ñu bëri ci ñëw en général dañuy muuru. Ah. parce que bon peut être dëkk bi nu mu bindoo en général yenn façon colloque yeeg yenn façon comportement yi duñ ko du dongoo. waaw parce que aussi quoi qu'on puisse dire Thiénaba dëkku diine la ce qui fait que bi damay gis ni xale jigéen ñi en général seen sori moom en général vraiment gis naa ni sori bu yiw la moom peut-être feeñ na ci quoi ci comportement maintenant nga apparence bi moom benn affaire la mais doxalin bi carrément ci jikko moom leneen la waaye lu mu mën a wax daal mooy ci apparence moom a dëgg yàlla sori bi moom en général doo ci gis lu lay déranger dina am nag ay benn benn parce que am na ñoo xamante ni ñoom voilà ñeneen ñoo jóge ci yeneen environnement yi am na aussi ñoom tamit dañ leen transféré jóge feneen ñëw mën nay feeñ mais bariwul ay benn benn lay doon ko salle de classe am na amul waaye lu ci mënta am rek mooy euh, depuis ñun ñu ñëw fi ba tey euh, proviseur bi fi nekk muy proviseur Abdoulaye Ba bon mu ngi def ay ay ay jéego bon boobu tey di jéem a construire ay salle de classe. bi ñu fi ñëwee léegi je crois defal nañ fi euh, benn xuma ñaar salle de classe yokk nañu aussi table banc yi voilà donc le problème ne se pas trop c'est vrai nag par moment da am tuuti difficulté rek parce que mooy waral yenn saa yi élèves yi peut dem ba ay 17 que salle xëy na doyul parce que nii nii nii soo xoolee nous avons 28 euh, classes pédagogiques maanaam boo xool classe yi sixième ba terminale di nga da ngay am 28 classes sixième am nga ci 4 4 euh, am nga 4 mhm. quatrième am nga 4 troisième am nga 4 am nga ñetti seconde am nga quatre première am nga aussi quatre terminale soo ko boole loolu dafay nekk vingt-huit classes pédagogiques mais classe physique yi mooy salle de classe yi ngay wax soo ko xoolee dix-huit la xam nga kon classe classe bu nekk am loo salle donc am nga au moins loolu nag booy booy defar emploi mooy waral yenn saa muy am ay heures creuses gis élèves yi def cours par exemple 8 temps wala 8 ba 11 mu creuser 2 heures temps mais lu ñoo ngi a sonn foofu bon bu ñu sañoon nag mu gën a amee amélioré wu. mooy moom xam nga école amul vocation di tabax école école vocation du di tabax moom xaas bi xale di inscrire loolu day demaat ci njàngu xale yi. voilà leneen li aussi xam ne état état bi moo koy joxee nekkul xaas liquide mais euh, ay ay matériel matériel lay doon lu mel ni ay papier ay encre ay ay ay ay feuille yooyu yooyu moom dañ ne ba la fournisseur mais nekkul xaas liquide donc école amul vocation sax di tabax waaye yenn saa soo déggoo ak conseil de gestion bi nga xam ni bon parents d'élèves bi am na fa ku leen fa teewal élèves yi aussi pare profit pare boo leen ciy déggoo yenn saa yi euh, nécessité bi dina tax ñu permettre la nga mën des fois tabax. je crois conseil départemental may nañu fi benn salle informatique moo duggee am na benn salle ñoom ñu ko tabax si seen fond bopp xam nga équipé ko aussi en matériel informatique yooyu daa xeet ndimbal ngay am pour mën a am ay salle yenn fekkee ne besoin bi dafa nekk carrément nga fipp rek tabax. mais comme ni ma tabax moom nekkul vocation école. mais xam nga xam nga tabax dafa laaj ay fonds. ba tey bon tabax benn salle lu mu tuuti tuuti tuuti da nga ci dépenser au moins des fois bon lu ëpp presque 5 millions wala lu mat presque ay ay 10 millions ci benn salle rek bu nga équipé ko. xam nga te loolu boo xoolee xale yi dañuy inscrit yëpp yëpp yëpp soo ko xayma matul 13000. boo bëggee jël nga jël benn 10 wala 15 millions di ko tabaxee salle boo def naa école bi du dox. rek mooy ñenn ñi nga bind leen wax leen jafe yi ngay dund yenn saaye ñoom dañoo am ay charges yu bari parce que mënuñu def lépp. yenn ñu def benn ñu am lu ñu def wax dëgg yàlla. ba ba seen gox dëgg mu la wax nee naa la nee la yenn saa ñu def. mais mënuñu lëpp mais bu ñu defee aussi yow xam nga ni bu ñu lay may moom doo doo xeeb ku ñu may doo doo xeeb. waaw non pas taamu sax mën nga wax li nga bëgg mais li ñu la may lu mu tuuti tuuti il faut nga jaajëfal nit ki. parce que xamul mu def ba jox la ko comme lañ lay may rek. mais terewul am na ñu fi nekk ñoo xamante ne c'est bonne volonté ñoo xam ne ñoo ngi fii euh, dëkk bi mel ni ay ñoom euh, juge Demba Kandji ay ñoom inspecteur Kandji ak ñeen ñoo xam ne xaw ma seen tur ay ñoom waaj sant Wade ak ñeneen vraiment dañuy def seen loxo bu baax a baax même ba ci mairie bi ah mairie bi monsieur le maire euh, Talla Diagne wax dëgg yàlla bëri na yenn saa yi léegoo lekk ñuy sentir mu ngi def loxoom ci école bi bu baax mais xam nga école tamit bon li mu soxla yëpp yëpp yëpp doo ko mën def d'un seul coup ay ay pàcc pàcc rek nga mën def. maa ngi koy xool sànq rek bi avant avant ngeen ñëw instant bi nous sommes presque pratiquement à 1321 maa ngi nekk def nag nettoyage xam nga booy yi moom seegul tijjee da gis ñoo xamante ni dañuy transféré gis ñoo xamante ni dañ dañu war a doubler bugguñu ñu ñu ñu ñu dem da ngay da ngay nettoyé liste yi. mais à l'instant T où nous sommes on est pratiquement ay 1300 et quelques élèves. waaw sixième ba sixième ba ba ba xam nga boo xoolee chaque année euh, élèves yi am entrée sixième te nekk ci zone bi yëpp dañuy ñëw lu mel ni ay Canaba euh, fii nii ay euh, Kër Mbañ Diop xaw ma mooy mooy nekk ci zone bi rek quoi bi am entrée sixième dañuy ñu bëri ñëw jàng see fii ren jii ren li ñëw rek mat na presque ay deux cent vingt cinq élèves. yoo xam ni dañuy doog dal euh, sixième pour la première fois moo waral nga répartir ko ci classe sixième ay ay ay ay quatre sixième yoo xam ne effectif yi dina tourner autour de ay 69 69 70 en plus da ngay am aussi booy am BFM yi te jóge ay Kër Madaro jóge ay ANEN ak transféré aussi nga yokk leen ci li fi nekkoon boo dindee ñi am bac pratiquement mën na des fois di xaw a yokk tuuti xam nga on fait avec moo tax yenn saa ñuy def ay marche marche de tey ji tey ñuy bàyyi ne 8 heures dañuy tëj bunt yi déedéet dañuy bàyyi euh, garage porte bi par bàyyi huit heures et quart pour permettre ñi nga xam ne dañuy jóge des fois ci village yi c'est pas évident ñu am tuuti marche pour bu ñu ñëwee aussi un peu en retard ñu mën leen accepter yenn saa yi aussi c'est pas évident nga jóge ci village yi ñëw jàng si soo ko bëggee teñoon trop boo defoon ndànk ñenn ñi mën nga leen léser moo tax loolu ci kaay tamit dañ koy dañ koy dañ koy gérer quoi ci règlement intérieur bi xam nga boo xoolee euh, l'heure de la rentrée le matin c'est xam nga mais comme xam nañu réalité yi fi nekk moo tax ñu pousse ko ba huit heures et quart donc xale bi même avec quinze minutes de retard c' est mais aussi xam nga mënuloo aussi nga ngay xaabaabal parce que aussi prof boo xasee ba dugg classe ba commencé def cours aussi du intéressant muy am dug gën dug gën fu mu toll quoi moo tax dañuy bàyyi marge de manœuvre ba écart mais écart su moom dañuy teg buntu ba 9h moom kii ko jiite ci kaw moom la ñuy wax proviseur Ba nekk fi tey. ki toog mooy man censeur bi après am nañ ñaari SG mooy mooy ñaari surveillant kii généraux yi am na aussi intendant ki xam ne moom mooy gérer wàllum koppar yeeg xaalis bi mooy intendant am na aussi aussi comptable des matières maanaam fi école bi lu fi dugg luy wàllu rek mu nekk këyit que mu nekk euh, siège ak lu mën doon moom mooy gérer loolu na aussi ñaari secrétaire yoo xam ne ñoom ñooy def secrétaire bu censeur ak bu proviseur am na aussi beneen koo xam ne ñu ngi ko aussi moom bibliothécaire la ak keneen ku nekk euh, euh, salle informatique qui gérait euh, examen et concours ak surveillant yi donc boo xool laal ñooñu ñoom ñoo ëmb administration bi maintenant su jeexee nga jël léegi wàllum enseignants yi prof yi ak ak ak prof yi mat nañ ay 65 élèves en général 65 je crois waaw ci benn classe xam nga boo xoolee nag xam nga lycée comme fi nee naa cycle long déjà la sixième ba terminal xam nga dafa dafa bari dafa bëri cycle long la quoi ba pare aussi euh, collège ak lycée bokkul ak école élémentaire fi di nga gis benn classe lu mat pratiquement sept ba huit huit prof di fa intervenir parce que matière bu nekk ak prof bu koy jàngale waaw loolu moo tax des fois prof nga ya am yaakaar ni bëri na fekk na sax ñoom boo bëriwul bëriwaay boobu quoi jafe-jafe école moom bëri na waaw mais xam nga euh, jafe-jafe yi moo tax ñun ñu nekk fii waaw da nga fiy nekk di gérer waal jafe ak jafe nag fépp la nekk jafe-jafe yi mu ngi ci personnel bi jafe-jafe yi ci élèves yi jafe-jafe yi mu ngi ci environnement bi jafe-jafe yi moom du fi jeex saa boo xëyee ak loo jafe mais nag yow. mais bi fondement xam ne naa daal jafe-jafe bi bii fii ci école bi boo ko doon seet tey jii mun nga wax xëy na peut-être ñaar à la bu ci njëkk bi mooy wàllum table banc xëy na beneen bi xëy na peut-être wàllu peut-être salle de classe à la limite waaw parce que ailleurs les gens ont assez assez de classe te loolu daf lay noppal dina tax élèves yi di a teel a wàcc par exemple fekkoon fii am nga salle classe yu doy élèves mën nañu wàcc à partir de 14 heures parce que bu baax saal yi doy na yenn heure crise bëri doo ko am mais bu saal doyul tu es ngay dem ba ay 17 heures loolu tamit temps boobu des fois mën na nekk jafe-jafe beneen bi mooy yi parce que effectif yi ngay am dafay des fois xaw a bëri tuuti parce que da ngay dem ba ay 70 ay 75 su ko su ko eggee rek en booy boo duggee saal en fekk ñu toog parce que ma des fois 3 par table te xale bu fekkee toogaayam c'est pas trop confortable déjà su bind dana xaw a pour mu aussi am suivi carrément du yomb mais loolu laa xam naa moom jafe-jafe benn ñaari daal peut loolu la mooy bu ñu amoon tey ji peut tout table banc yu a yokku dana tax xale yi moon toog deux par table maximum loolu ça ferait l'affaire ndax boo toogee par deux ci nga nekk à l'aise bind bi a concentré wu beneen bi mooy suñu am aussi yeneen salle de plus dañu aussi gën a yombal euh, liggéey bi bu dee fii moom matériel bi amuñ ci problème parce que matériel bi li ci ëpp mooy matériel pédagogique bi matériel pédagogique bi weesu lu dul nga am tableau nga am éponge nga am craie ak nga am matériel buy dem ak moom saali seet na bal nañ ko donc début moom ñu am ñun problème problème bi ñu am kay mooy xam nga ba dafa xaw a nekk benn euh, zone bu xaw particulière parce que bu ñuy tijji dafa xawoon coincé un peu ak euh, gàmmu gi donc Thiénaba moom ku wax Thiénaba wax gàmmu bu xësee jot moom daanaka pour nga am leen de xaw a jafe donc foofu prof yi ñu fi woon mais élèves yi lañ gisul woon donc début moom on a accusé un de retard parce que gàmmu bi ak beneen gàmmuwaat bi yëpp ça a pris un peu de xam nga ñenn tamit dañu dëkk ci village environnant yi su nawet bëggee jeex da ngay gis ni dañuy dem jàppale seen parents tamit ci tool yi souvent duñ mën gaaw a ñëw il faut ñu eggal loolu ba pare loolu aussi bokk ndax des fois ay ndaw ngay jàppale leen yooyu daal mu nekk jafe mais su yooyu xësee ba passé rek pratiquement amatuñu problème particulier ku ci am parce que am mooy xam nga ñëw ñëwee loolu aussi mooy xam nga ñeneen dañuy ci mbal yaakaar il faut que ñu bàyyi ba pare mën a ventiler loolu am tuuti koppar gu ñu mën a jox xaalis ñu inscrire. wax lépp école xam na ko ba tax du ñu leen teg pression bu ëpp ëpp ci wàllum inscription. yenn saa yi dinañ tempose tuuti xaar fii ba ay fin décembre ba début ba début janvier pour que ñëpp mën ko gën waaye moom dans l' ensemble mën na wax ni c'est satisfaisant loolu nag li ko àndi bëri la parce que c' un travail d' non seulement administration bi am na ci wàllam prof am na ci wàllam. élève bi am nañ seen wàll mais parents d'élèves aussi joué nañ ci parce que xam nga njàng moom élève buy jàng moom moom mooy sant bi waaye du moom kese xam nga parent yi ci kër ga da bokk ci jàng mi administration da cee bokk ak profit ak ñoom seen bopp ñoom ñoom suñu bëggee te yàlla rek rek dara la enseignants aussi ñoom aussi ñu mettre leen dans de très bonnes conditions dara la administration aussi accompagne leen parents yi ci kër ga aussi ñuy veiller à ce que xale yi di nafar li ñuy def mm. en préféré rek yàlla day nga am résultat yu